léegi docteur ba jàngat nga def ci résultat yi. jàngat bi ñu def moom mooy euh, tey jii cees dañuy remercier di sargal bépp Thiessois yi ak bépp nit yi nga xamante ne tey dañoo jege Thiès jege jàppale ñu ci ba ñu am résultat yi nga xamante ne tey dañ ko gis tey ci zone ouest toll nañ foo xamante ne sa Seck dem na ba nga xamante ne dafa dem ba lu ñuy wax ni dañu te presque témboo jegante nañu jegante nañu. defarante ba nga xamante ne fii nga xamante ne moom moo doon dooleem dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam mooy ci euh, Malick Kayre muy base naturelle et affective am dem nañ ba 70 voix la ñu ñu continuer dem ci yeneen zone yi nga xam ne moo ko daan mës a gañe muy Somme muy HLM euh, yooyu yëpp il mag il les a perdu maanaam gañe perte na ko de manière claire et nette et effective yooyu yëpp wane ne que Idrissa Seck aujourd'hui tout le monde sait que Thiessois yi petit à petit ñu ngi ko commencé bàyyi te loolu nag lenn moo ñu ci dese lii nga xamante ne moom la ñu doxal ba am fi am victoire yu toll nii suñ ko continuer dinañ ko mën a am ndax unité ci unité la ñuy mën a amee victoire ci unité la ñuy mën a amee lii nga xamante ne mooy ndam mbir mbër mi nag dem na ba trois appui benn bëbax a ci des te bëbax boobu lañu ci demandé président de la république mu gën a sëgg ci jàppale ci Thiès gën ñu téye gën ñu jàppale gën ñu xool ñu gën a am suy union bi nga xam ne dañ ko deer ñu gën koo def te nit ñi teel a jóg bu ñu bàyyi ba yëf ya jeex ba ne kot ne jon ñi daal di doog a egsi c'est vrai que dinañ sonn dinañ def activité suñu teelee jóg wala bañ a bàyyi ba ñu paree nii ñu bañ a bàyyi te ànd ba nekk benn ku ne li nga xalaat xol ne ci sa xol nga di ko wax ñun ñëpp ñu bokkoo ma lu leer naññ na moom mooy quatre appuis yi soreetul mille 2017 bii incha allah dinañ wone Cees na jeex na te bañ koy wax ñu bare ne woon ne ay dof lañu wala li ñu doon wax waxu naxasa xandang la waaye tey jii kenn tu koo wax ndaxte ku dem ba nga xamante ne ku doon gagné fenn différentiel de huit huit à dix mille fois nga dem ba ci différentiel de trois cent fois ah non yëf yi jeex na Idrissa Seck léegi léegi ñu ngi jàmmaar jàmmaarloog moom te dina ko xam.